Hai. Assalamualaikum. Wayal boy. Assalamualaikum. Wa ana yaay boy. yaa ci sa suite présidentielle. eh ya bëri maanaa waay. kuris. man kuris waay. <laughs>

Vamos cozinu. Yo tengo ahora voy a lugar vamos cozinu. Vamos cozinu. Para que vaya la uno fububu le mari. Eh. ya ya sina. Dem na da mai ligayi. Mai cha. Kul dem. Ga ma ga dem mai ligayi. A tuka jam. Ma ga dem. Da mun jam. Mun ta nyau jam. Yalla yalla mai dam. Amin amin. yal na la yàlla may ndam lu kawe sa njort lu la jig amin baay sa yal nañ ci am ndam loo mës am te mu jig la jig ñu ñun ñëpp amin baay waa koy sekk caaw dem naa te ñëw yaa <laughs>